bismillahi rahmaani rahim eh, vidéo bi eh, may def ni ay mbokk ñoo ko sàkku ci man waaye nekkul lu ma yitteeloon sax dëgg-dëgg waaye nag fata bayyano ci bunt boobu rek la ko ñoom suñ fàllu ak yenn ci mbokk yi sàkkoo ci man muy propos yi Omar Diagne wax noonu fan yi eh, te man maa ko njëkk a wax ko di ko recadrer pour li muy wax ci mouridisme ak yu mel noonu Euh, mu attaqué ma personnellement tudd na ay baati fen nag ay baati yu ñaaw waaye yooyu moom duma ma ci wax du ma ko ci tontu ndax duma ma déraillé euh, voie ma nekk muy ci voie l'islam ak euh, jaadilhum billati hiya ahsan wa jaadilhum billati hiya ahsan wax ci xam-xam ak diine rek saaga du ma ci fekk comme ni mu ko defee waaye xam naa ku ñeme yàlla la ku ñeme yàlla wax <laughs> xam naa war ngaa mën mën ngaa ma nga xam ne agsi nga ci moom waaye li borom xam-xam doon wax naan ku yàlla nattoo nga mën a wax lu amut ñaar yàlla mu may la xel mu rëy ba doo def doo wax lu wuute ba doo wax la nga waxoon doo ko fàtte ba wax leneen waaye ñaare ku mën a wax lu amul moom boo dee fàtte rek toujours da ngay wuute ak sa bopp eh, sa wax ji dafa woroo ci lu bare bare bare ci lu wane ni yow doo kat lu am ndax euh, li nga wax ni euh, da ngay wedd ni li nga wax ni biñ la ñoom Mamour Mbaye bëgg attaqué Walfadjri ak ñoom Mansour Sow danga ngaa yoroon fetal te <laughs> subhanallah keroog de yaa ngi sol benn yére bu weex bu oyof nga sol maa ngi doon xool message yi sax yi ñu waxante woon maa yow mais euh, xëy na naa ko gis fetal gi nga yoroon man de dina ma jaaxal lool ndax keroog ñoo den dama jàpp sa loxo ba ci suufu wal fajar yi euh, commissaire bi soog a ñëw commissaire bi ñaan ñu ni ñu ngir yàlla ñaan gaa ñi leen ngir yàlla dem leen commissaire jëppal bi gaa ñi soog dem man ma defal leen wax leen leen dem leen rek moo gën a rafet ñoom mbay mbeng ña nga fa woon Mansour Sow ma nga fa woon yoroon fetal sax moom man Mansour ak ñeneen ci mbokk yi ngay lox lox yu métti sax loolu dama koy waxaat ngay lox lox yu métti tiit lool. loolu ci kanam ñoom Moussa Diop la ak ñoom Oustaz Assane Diouf ñu ngi fi ci kaw eh, ak mbokk yu bari ci waawal fajiri ñoo xam te ni tey yaakaar naa buñ déggee sa wax ji réer na leen jàpp ndax wax ji amul ci nga wax. duma ma jëfandikoo kàcc du ma jëfandikoo fenn wax ji amul rek laay wax ndax lu bon bon am naa respect yow. amaa li nga wax nag ni eh, ci fi nga tudd tuumaal ko ak yu mel noonu loolu moom da lay ibtixaal nga indi kaamil ma indi kaamil ñu wàcc ci yàlla ndax kooku daf ma fay wala daf ma euh, fay ngir ma attaqué kenn wala dara maa ngi lay ñaan ngir jëmmi yàlla ba jël sama vidéo bi ñu nga ñëw ñu ibtixaay ci télévision ñu teg kaamil ñu wàcc ci yàlla ndax loolu am na wala amut loolu laa lay wax ci côté boobu euh, feeñal nga sa bopp nag gën a feeñal sa bopp ndax yaa ngi ci wax ay loo ak yu mel noonu loolu day wane ni kon yow nekkate maanaam xeex gi ngay xeex tarixa yi dafa am ñu ne sa ginnaaw kon xam nañ si ginnaaw am naa li nga wax ci chavre beeg yamba ji am poro ak yi am Touba ak nangam nangam loolu dañ ci indi preuve boo ci indee preuve wane ni kilifa diine yi ñoo ko fi indi rek dootu problème incha allah am naa nag ay saagaante ak yooyu xam naa li ma la wax daf laa métti li ma la waxoon ni la euh, jëroo tontu parce que amoo xam-xam benn euh, euh, yaruwoo ñaar te ragal naa ni xam naa ni dangaa bokk fu baax ndax am na loo xam te as gor bu koy def te bokk fu baax maanaam bu rusloo ay mbokkam sax war nañoo réunion waxtaan ak moom ni ko na génn ci lii bu fekkee ñett yooyu am na ma xam ne kon sama xel nekku fi da ngaa ndax sa wax ju bari yii ak coow lu bari lii fu nekk nga dugg fa di coow ak a wax as gor du ko def nit ku baax du def السلام عليكم ورحمه الله وبركاته